mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñu ngi fii ci Touba Mbacké ngi fas yéene leen digtal xibaar yi nga xam ne moo fi bàyyeekoo ci weeru koor gi xibaar yi bokk na ci euh, ñaar fukki fani yi di bës bi nga xamante nii ci la maam Cheikh Ibrahima Fall daje woon ak Serigne tubaa ñu ko doon màggalee ca Kaolack mu nekk bés boo xamante ni waa kër Serigne Cheikh Fall Khadiké ñoo koy amal at mu jot ci njiital xalifaam di Serigne Fallou Cheikh mu nekk ndaje euh, moo xam ne amoon na solo lool ci cérémonie officielle ba sax bëri na kilifa yoo xam ne teewoon nañ ko bokk na ci Cheikh Ndigal Fall ak yeneen euh, surtout maam Cheikh Ram Fall yu takku macha ci loolee sax am na kilifa yoo xamante ni ko demee ni ki Serigne Arabi Niass mu yëkkati ay kàddu yu seede yu am solo jëmee ko ci maam Cheikh Ram Fall waaye jëmee ko ci ki nga xam ne Cheikhul Khadim ñu ànd teewlu Serigne Arabi Niass. man daal ku sopp sëñ Touba wax naa ko léegi obligatoirement war ngaa sopp Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Touba. سن توبا موي القران موي الاسلام كتبت في البحر اني لا امد يدي كان على النصارى عبيد الماء والطين مودستي من اجعل رجوعي الى قومي سعادتنا خم لولا بين مي سعادتهم نخ موم يون بن نون لا دون اوتلي بيم نيوي فاي نتي ريغومي لول كوم نيه كوم نقدي léeg-léeg nga dem ba ci yàgg sa xol di giiñ nit ñi ñu ne murit yi ñu ne dañoo organiser rek ma ne organiser leen xam nga ñëpp xam nañ baatub organiser man ay damaa jàpp rek ne ilayya qaadallahu ma lam yakun te wala yakunu abadan lil mumkin ya man kott dong rek only xaadala ummati allahu yàlla lim ma jox musu koo jox kenn te dootu ko jox kenn waxu ko pour bàkku am na ko ne ma sawaa ji day bàkku ma ne kan mu tudd ma ko ma naan alhamdulilah ba nga ma naan sawaa ji mu ne ma waxoon naa la nag gi de lay boo muy tuur café gi ma ne ko café ñépp a ko xam caféem gi la kenn xamul ba léegi ci xibaar yi fii ci Touba Mbacké ni ki démb amal nañ fi li nga xam ne moom moo di leelu xadr ki ci leelu xadr googu sax am na kilifa yu bëri yoo xam ne profité nañ ngir ñëw ziyaare Serigne Mountakha Bachir bokk na ci ñooñee Serigne Ahmed xalifa ñas euh, Ahmed Khalifa Niass ñëw na fi ziyaare ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, yeesalaat kóllëre yi nga xam ne dox na seen diggante ñoom ñaar ba ci loolee sax am na taalif boo xam ne indaale nañ ko Serigne bi muy taalif boo xamante ni baayam moo ko defoon mu jëm ci Serigne don séré ay kàddu yu rafet ci mom ñu ànd teelu ziar bi nga xamné ne Ahmed Khalifa Niass amal nako ci kanamu Serigne Mountakha mbake Bachir. xasida yow defal ay xasaay ci serigne bi mu def xasaayit yi so bay moko def ci mo so bay moko def jumale ko ci serigne bi nga xamné daf ko wax niko alquran yi nga ñu jox alquran ni kayit le way yaay alquran ji dox ci kaw suuf ataxaftana bi kitaabin nazira lahu arwa khalila sadana هذا الواحد منكو منكو رال جلالي نبي جمي سن توبا جلي فيري هو الجلالاني تفسير لمنصبكم من جلالي فيري القران كدوء صبح لما منكو جلالي فيري فيري القران سن توبا لي فيري مام لاي واخ لي سن بي دون ba léegi mbokk téléspectateurs yi ci leel xadar gi fii ci Touba Mbacké amal nañ ko fi ci résidence Khadim Rasoul ndax fii la Serigne Mountakha Mbacké Bachir amalee guddi gi leel xadar gi ànd kook mboolem taalibe yi ak waa daara Ibsaxiya muy njàng mu yaatu moo xam ne amal nañ ko fi ay bernde yu yaatoo yaatu yoo xam ne amal nañ ko fii nii ci guddi gi muy mbooloo mu takk moo xam ne ñëw nañ fees dell ci kër gi ngir àndandoo xalif général des Mourides li nga xam ne moo di leelu xadar gi fii nii ci kër gi mu nekk une première ci taarixu yoonu Mouride donc mu nekk loo xam ne am na solo ci loolee sax ginnaaw bi ñaanee ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké Bachir bég na lool ci li nga xam ne def nañ ko ba tax na am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu ànd teewlu ko. Serigne bi nee na jërëjëf jërëjëf jërëjëf nee mën naa wax ne sax nañu sant waaye ñun nii nañu sant. nañu xam ci biir pàggu téefu sëriñ bi rekk la ñu nekk kon nag doy na nee na bu ñu taxaw bu ñu gestu suñu sago si na jëm kanam rek nañu ànd ak suñu sago rek te nekk ci li ñu nekk rek sëriñ Mbacke jërëjëf jërëjëf ginnaaw bi sëriñ bi ñaanee ba noppi nag ci la ànd ak mboolem taalibe yi def benn euh, convoi euh, daal di dem fi nga xam ne moo di ci jumaay Tuubaa ji ci mbooloo mu takkoo takku boo xam ne génn nañ fu ne mu nekk mbooloo mu takku moo xamante ni ñu bëri sax ñu jàppoon màggal la sëriñ bi doon dem ci euh, jumaa ji ci fajar gi ngir dem jullee ji fa fajar ginnaaw bi mu ñaanee fii ci résidence Xaadim Rasul mu nekk mbooloo mi ngeen di gis nga xam ne dafa takk lool kenn ku ci nekk bëggoon gis sëñ bi ak mbégte goo xam ne àndoon na ko ak euh, sëriñ bi ndax li nga xam ne moo di guddi lal xadr gi nga xam ne euh, fanaan na ko fii nii ci résidence Xaadim Rasul ak xalif général des ginnaaw bi sëriñ bi euh, jullee fajar ba noppi ci la génn daal di dellu fi nga xam ne moom moo di daarul minnan mbokk téléspectateurs yi lii mooy liñ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci Touba Mbacké ci weeru koor gi di leen sant bu baax di leen euh, gërëm ci teewlu gi di leen dig daje ëllëg incha allah jërë jëf.